dégg nga côté daa mel ni de. quatre zéro dièse mooy tax nga am ndam ci réew mi de cote. mais sa voyage dafay risque na de. <laughs> foofu la réew mi toll lépp cote. réew pour nga am ndam il faut ngay cote daal normal. yaa ngi wala amoo jot. Ah. amoo jot mbaacu daa mel amoo temps de. yaa ngi sa bopp. fel sànneeku voyage d'affaires. Oh, dama ko bëgg ba gi toog di xamat. maay sama garaam fel ci dafa jaadu. ajjuma fel nga saag bi léegi garaam bi moo des ba nga koy fel ajjuma. Ah? waaw da ngay jënd yow dama lay jaay bon prix. baxa bi ngay laal ajjuma nga siif ko def ci def ci saag bi def ci musóor bu jël jëli immeuble Kébé rek wëndeelu toog sa zee yee xar bi tànk jaragul jeeg bu mbaajoo ngi laaj ay benaa si mbaajo mën na jógee France tey ñëwaat laaj bee turki premier classe mbaajo ñëw na ba jënd saak naa doo ñëw jënd sama bagage yi ma yi ma indi saak yu bees yi tey de ñëw na jënd bi saak indil bébé Fanta sëri ca maa ngi sama boutique ah war ngaa mën a ñëw de